ni mu amee belle famille bu doy waax noon la amee également belle fille yoo xam ni goro yoo xam maanaam euh, ñu doy waar tamit ñoo xam ne tamit tas kër ak ruube ak it euh, génne ay jukko rek moo leen tax a jukk faaw ñu wax ci nag faw ñu wax ci alors guys, j'espère que yéen a ngi ci diam c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie euh, alors pour la dernière fois on parlait de la belle famille et de la belle euh, fille Mon nekk une relation boo xam ñun comme je l'ai dit tantôt ñu que koy dund mu nekk loo xam ne yenn dem ay jafe-jafe bien qu'il y a des exceptions et on s'en réjouit mais euh, je pense que euh, li gën a ëpp solo mooy ñu wax ci ñi nga xam ne vraiment ñu ngi dund lu metti euh, ginnaaw bu demee sëy sëy mais également ñi nga xam lan fekk tamit am na kër yoo xam tas na te ñi sëy si rek ñoo ko def euh, dans la première vidéo on a parlé de la belle famille euh, surtout mais on a mis l'accent sur la belle fille moom bien qu'on a parlé des deux mais euh, relation yi nga xam fa euh, ngir euh, euh, ngir dëkk bi mën a yomb base bi maanaam base bi ci doon waxoon ñu desandi ba tey ci belle fille hein parce qu'on va revenir pour parler de la belle famille mais toujours la belle fille parce que comme je disais tantôt comme ni mu amee ñi nga xam ne ay jigéen yoo xam elles sont animées de bonne foi noonu la amee également ñoo xam ne tamit taskatu kër lañu je pense que ñu bëri kay ñu ngi koy dund am na kër yoo xam ne jàmm fa am am na kër yoo xam ne mosuñoo xam xiiroo mosuñoo xam ngaayoo yow nga ñëw sëy si si kër gi ñu dalal la boole la seen bopp sax privilégié la nga am loo xam ni sax ñi nga xam ni dëkk nañ ci kër gi amuñu ko au lieu que nga ñëw am noo doxalee boole euh, comme jéegu pousa ni mu war a mel dajale non yaa ngi xool nag ngay def euh, ba euh, féewale sa jëkkër ak ñi nga xam ne ñooy ay sëram ak frèram ak i tamit yaayam yàlla bu fa ay wujj perco ga am loolu tam mu nekk sujet boo xam ne tamit gëm naa ni soxal na bu baax a baax sénégalais te dinañ ci ñëw incha allahu rabbi euh, nga ñëw war a defar euh, ñu war la yar ci defar parce que c'est très important li naan nag ni ni nga li nga bàyyi sa kër loolu la nga yóbbu c'est-à-dire ni sa yaay sëyee euh, say waajur ni nga gis ñuy sëyee noonu ngay sëyee bien que yenn saa yi nag am ñoo xam ne nga judd ci gëlëm nàmp ci mbaam muy exception yi waaye gis loolu ngay reproduire moo am yoo xam nag ñëw nañ ci kër tay jii kër gi toj na te dara indi ko lu dul ki nga xam ne mooy mat di ëf da ngay ñëw ci kër comme j'ai dit tantôt ñu yaatal la euh, euh, defaral la lépp liñ la xam ne war nee la ko defaral euh, boole la seen bopp privilégié la sax laay wax sa nag amoo loo def lu dul xool xool ay stratégie jël sa temps nag jël sa temps nag mel ni kuy def lu baax nag xool say stratégie xool say manigance yaa ngi commencé déjà ci sa nopp borom kër bu guddee nga ne ko diw de lii diw de lii sa sër kobas na ma kii def na ma lii kii wax na ma lii sol nopp ba mu fees dell moom tam mu waye di bay bëgg a dee tamit waye di waye di waye di ba mel ni dërëm xëy suba teel tong waa kër gi euh, yenn saa yi nga def say togg ber ko parce que tamit lu bëri tam dina xew ci kër gi ki nga xam ne moom mooy borom këram du ko yëkk parce que les hommes ils sont censés génn xëy dem liggéeyi donc yow yaa ngi ruubee ci kër gi di def ay di def say bu guddee nga mel ne nekkul yow bu berse bi meree ne man bëri histoire nag moom du wax ak yow wala mu jël ay distance am après finalement ñu ne moo sikk alors que euh, le vrai problème xamuñu ko li ne ci biir maanaam sën ba lu ko lu ko ëmb xamuñu ko euh, commencé nga déjà ber ber sa lekk de temps à ngay togg pour sa jëkkër kese ci koo xam ne da dëkk ci kër famille doo jël sa benn plate bu ndaw sa jox sa goro ne ko am ñamal ah ah du la ci fekk commencé nga déjà ak tëju gu métti parce que am na jigéen ñu mën a tëju nag am na jigéen ñu ñeme tëju am na jigéen ñu mën a tëju te zéro parce que c'est vrai que tamit miinante woo leen mais tant que yow yaa ngi tëju di beru miinante du mës sa am euh, nga ngay ngay beru sa beru yenn saa yi sax mu am piir ñoo xam ne da ñëw ci kër pare xeeb leen te bari na fi loolu sax ñëw sëy si pare xool waa kër ga pare xeeb leen doye di leen te nag li naan nag ko ude nu mu la gisee la lay ëwalee en général bu ko jénki xeebee waa kër gi c'est parce que borom këram moo nawul waa këram y a pas am na nooy comporté ak sa sœur am na comporté sa yaay sa jabar du am fit ba am yenn comportement yi ci biir kër gi bu sa jabar yabee sa yaay wala mu yab say euh, ca yow la li naan bu bu bu bu bu xamalan euh, euh, dabee gaynde bu bukki dabee gaynde sa sa sa sa doxin bala c'est tout comment am comportement yoo xam boo am am noy responsable ta femme ne sera jamais du am fitou elle sera jamais capable de défier ni ta mère ni encore moins tes sœurs bien sûr nag boobu dafay fek nga def li la war euh, belle-mère def li ko belle-sœur def li ko war donc bëri na jigéen ñoo xam vraiment instant yi nii instant yi nii ay euh, euh, sœur ak frère duñu waxati yaay ak doom duñu waxate te ak boobu noonu nag ko ñeme nag mën ko yenu nag ah man de si yaa ma yaa ma fit parce que ak weesuwul ak ñu re nu mu méttee doom nga jur ko fu ñu ko war a jël def li ci war yëpp ñu ñëw fokkati ko say loxo parce que noonu rek laa ko mën a woowee fokkati ko say loxo yóbbu ko euh, nga am ci dongu di di gis te mënoo ci am baat mënoo ci am pexe mënoo cee dara te yenn saay nag du doon mata di xale bu góor bi de waaye xar fa xuufa lu ne nga dugg fa sunguf nga nga def sangat nga def parce que sa jëkkër pour nga liggéey ko yenn saa dina doon lu parce que ki nga xam ne yaa koy jox mu lekk te jafe donc yaay bi nga xam ne moom moo sonn ci doomam ba nga gis ko yow bëgg ko yow nga wëlbatiku teg ko naqar boobu noonu je pense que ak boobu noonu su fekkee yow jàpp nga ni ko rek da ngay dem beru nekk sa donkaasi ga yaa nax sa bopp lu waaye leb la lu ne deen la ko fay ba cëkk ndar kàmb nag yaa part secret am na sër yoo xam dootuñu wax ak seen frère parce defar moo ñëw féewale am na yaay yoo xam ñàkk nañ seen doom parce que jabar bi woo ñëw defar moom moo ñëw euh, féewale am na famille yoo xam dislocation am na ci parce que ki nga xam ne moo fa ñëw sëy si moom moo waroon defar te moom moo jaxase famille bi am na famille boo xam ñi ngi jege wàcc day rayante am na kër yoo xam toj na am na kër yoo xam ay litige am fa am na kër yoo xam ne beru am na ci kër gi maa moom côté bi yaa moom côté bi doonnoo ma côté bi doonnoo doonnoo côté bi lépp na indi ko lu du jigéen parce que ñu ñoom capacité différent ah. comme ñu ñoom capacité yàq te am na jigéen yu bëri ñoo xam ne euh, ni nu mënee nag euh, porter le chapeau à la belle famille ci doxalin bu ñaaw ci ñàkk te seen seen seen seen seen i jabar euh, si ñàq mën a toppatoo jigéen jël jigéen def ko mbaam jël jigéen di ko métti ci kër gi jël jigéen bañ koo conseillé ci kër gi noonu la amee tamit xale yi jigéen ñoo xam ne tamit noonu lay ñëwee ci kër tamit jaxase kër gi mélanger kër gi te problème musta am te nag fu nu toog nag di jéem a gëmloo parce que tamit il faut tamit même tu sens ça le débat dans le groupe de femmes entre autres dès qu'on parle de relation entre belle-fille euh, belle-sœur qu'on ait day jël position selon lui muy que su y yow da nga belle-sœur euh, tak tu prends la position le euh, jëla par belle-sœur qui ki une xam belle-fille la jël par belle-fille finalement objectivité du parce que ku nekk yaa a une ak et je pense que c'est important qu'on rappelle qu'on est les deux à la fois en général parce que parce que na frères machallah donc on est les deux à la fois on est belle-fille comme on est belle-sœur voilà donc ñaar yëpp lañu donc je pense que ku ci nekk ku ci nekk li ngay bañ ñu def la ko parce que la nga dund ba mu metti la soo demee sey ji war nga ko éviter li nga dund ba mu metti la boo amee opportunité yow nekk ci war nga xool naka ngay doxalee ba erreur yooyu noonu doo ko def et que tamit je pense que lu baax tamit soxlawu tamit ngay am yenn expérience pour mën ko xam gis nga lu baax day nekk si nit ñu yoree la ko nga xam ko nga bëgg ko Euh, nga nekk nag safaan ba nag ñu yaree la ko nga bëgg ko te am na jigéen ñu bari ñoo xam ne nag sëyuñu sëyaandoo ñu jàppalew ñu kuy sëy te nag seen yaay seen yaay ñoo leen ngemb bari na ci ñoo xam ne seen yaay yi ñoom ñoo leen gemb ñoo la naan defal nii waxee nii defee nii waxee nii sa papa de ba ma ko jàppee fii ci poñ lii def ko fii doo defee lii soo ko defee nii di nga am fii di am fii nga jël góor gi récupérer ko teg ko sa wet pour yow tu as gagné la ma chère tu te trompes sa gagné woo ko te nag loolu lépp lu nekk dinañ la ko fay suñ la ko fay yow dans cette vie dinañ la ko fay say si say doom donc noonu xoolaat baax a baax ni ñuy doxalee noonu xoolaat bu baax a baax nag la ñuy def ba defaral parce que am na jigéen ñu bari ñoo xam ne nag macha allah dugg nañ ci kër yaay doom duñ wax dugg nañ ci kër frère sœur duñ wax mais kër ga ñëpp doon benn parce que ci ni ñuy doxalee la moo tax ca yar ba comme ni ñu koy waxee ak ci jikko ju baax ci nañuy sàmmoo di jéem am jikko yu baax nañuy xool naka la ñuy def bay jéem a rafetal que mu nekk man que mu nekk keneen parce que loolu rek moo am solo te que tamit ñu xam tamit lu waay ren tamit ci loxoom lay naaj lu waay ren di ci loxoom lay naaj trois fois lu waay ren di sa loxoom lay naaj Euh, bon, je pense qu'on va... Mon euh, euh arrêter par rapport à les meilleurs, c'est belle fille et tout. Et ce n'est vraiment pas pour long, c'est la pire belle fille. Parce que euh, prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons approfondir la belle famille. Nous allons tamit lu des choses. tamit ñoy les tamit. Euh, je pense que le côté positif nous ni mu deux côtés Non, le côté négatif bi deux côtés y' a pas de parti pris prix c'est important qu'on en parle et qu'on essaye essaie d'en parler avec objectivité vous pouvez toujours réagir dans les commentaires sur un point de vue on attend en tout cas vivement vos réactions on peut en parler inchallah on aura également des lives euh, par rapport à ces thèmes qui nous euh, concernent tous et que nous vivons tous comme ça interaction du c'est votre chaîne YouTube c'est votre également page Facebook venez on va discuter ensemble sur internet date le monopole de la vérité personne n'a vraiment le monopole de la connaissance dañuy on se retrouve très vite